jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet yu 5M TV Sénégal jàngeen jëf ci teewlu bi. mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaine bi de parti Pastef bi. lañuy ñuy waxtaane kon bokk na ci lu tax ñu daal di ko fiy dindi maître Yoro Moussa Sow moo ko daal di xamle jëm nag ci état démocratique bi kon mu ni dañu rek war a respecter lu jëm ci suñu institution yi ndax parti boobe kon mu ni formé wul benn yoon wàllu violence ak itam rek lu jëm ci nag loo xam ni day yàq réew mi moom kay la mu soxla mooy état de droit waaye itam rek daal di jàppale sénégal yi jëm ci li nga xam ni moom la ñuy doxal ba tax na voie recours yi nga xam ni kon tey teg nañ ko mu ni Ousmane Sonko mi sax kon bu fekkee ni fi mu nekk nii mi ngi ci ay jafe-jafe loolee war nañ cee mën a wax bu baax a baax moom avocat bi mu ni kon ca nu mu gën a gaawee loolee dañ ko war a rek def ca nu mu gënee Ayib dafe moom nag mu ni kon mi ngi ci yoon bi ngir dem foofee ca Sénat ginnaaw kon lu ñeel déposition bi jëm rek ci fiche parrainage yi moom nag mandataire Ousmane Sonko la ginnaaw googee nga xam ni kon bañal nañ ko rek yile fiche ngir ñu jox ko ko jëm ci wàllu parrainage bi lee